doo man faj soxla askan wi man sama programme mooy seet fan askan wi am jafe-jafe ma jël loolu ma faj ka lu jëkk li nga xam ni askan wi am na fa jafe-jafe loolu moo jëm ci wàllu ndaw ñi liggéey jigéen ñi liggéey ngeen man bay côté boobu nag am naa si xam-xam bu bari wax naa ko ba ñëpp di ko dégg commune yëpp danaa jël commune yooyu dugal fi lu takku dotation spéciale lay doon. Madické Madické Madické Madické des ministres régionaux moo gën ay conseil des ministres décentralisé amul njëriñ région bi nekk gouverneur dootu fi am préfet mooy am faire bi nekk ñu créer conseil des ministres régionaux dana tax ñu mën xool projet yi fan la toll ak fan la ñu mën jëmale kanam Sénégal bàyyiwuma benn secteur wàllu wér-gu-yaram garanti naa leen fii si yàlla defee ma yéeg lu mu tuuti tuuti foo dem daa ko fekk dispensaire. boo équipé la waxuma dispensaire boo xam ne rek dafay am alcool ak coton rek mu ngi dispensaire waxuma boobu. dans lequel on respecte tous les Sénégalais. Nous ne laisserons personne piétiner nos droits. Nous nous élèverons contre Voilà le sens du combat. La paix doit avoir un socle. Le meilleur socle de la paix, c'est le respect de nos droits. C'est le respect de la démocratie. C'est de faire de sorte que tous les Sénégalais se sentent bien Sénégalais. Vous êtes des Sénégalais. Des Sénégalais dignes. Des Sénégalais dont je Je vous promets de transformer ces Je vous le promets. Soyez sûr que celui qui vous parle, en vous disant mon projet de société s'appelle Jàmm ak Xéwal, est en mesure de régler le problème de la Casamance. La paix y sera définitive. Population de Sédhiou, je suis heureux d'être là. Je suis sûr que la révolution que j'ai commencée depuis la déclaration de ma candidature est en train de poursuivre tranquillement son chemin et Inch'Allah, elle nous mènera au pouvoir. Nous voulons gouverner autrement. Il n'y aura plus d'intimidation dans ce Sénégal. Il n'y aura plus d'instrumentalisation de la justice. Il n'y aura plus de gestion clanique. Tous les Sénégalais auront droit aux mêmes chances, même pour certains postes de l'administration, je compte faire un appel à la candidature. C'est un Sénégal nouveau, où règne